I'm baba amro jërë ngeen jëf euh, mbokki askan wi dal leen ak euh, jàmm mel na rek campagne électorale bi ma ngay daati euh, jeex rek si kanidaay yi kenn ku ne rek yaa nga sa Daniel Wiras ba kooke su Ousmane Sonko jooje mu nekk rek sa Fuuta di ka toj nekk si Daniel Wiras bi mel na nag campagne électorale bi daanaka rek suba la ñu daati collecté candidat yi su bëri bëri daate rek fas wat waat jubal ci fii si Ndakaaru Njaay fas yéene nag def seen euh, collecteur de campagne loole nag man na ne candidat yu si bëree bëri ñu ngi fay euh, jubal si ku si mel ne Amadou Ba mel na nag moom daat nay dugg si waat euh, Dakaru fas kee rek def ab collecteur de campagne kon ni ko yeneen candidat yëpp di ko defee kon nag wéra wéra wa dem na keng waxe mag dem dan taali yaakaar naa kon lu waaye doon jaay léegi mu lambu campagne électorale bi àjjuma rek lay daati yam bu minuy jotee kenn dootul amati droit daal di campagne ñu nga xam ne moo di samedi bu ko defee dimanche ñu xëy dem si mbañ gàcce ku man sa morom daati duma kon nag loolee ña say xaar ñu bëree bëri candidat yi kon nag jamono ji seen liggéey daati nay wàcc lu jëm si wàllum campagne population bi